leeral say ba mu leer nañ. ak foo sa aajo fa. benn jour lañ jékki-jékki rek ma toog ci rajo Walfadjri rek dégg na ñoom dañoo formé association beneen association boobu waxoo ko sax association des litre professionnels xam nga boobu tuddoo ko. waaw ñoom Moustapha Guèye daal ñu formé moom ak Tyson ak Yékini ah moog moog booba Tyson génn mm. moog Tyson ak Yékini déedéet déedéet Tyson la dégg nga ak Mohamed Ali ak Moustapha Guèye ak euh, ak quelques mbër daal ñooñu daal ñoo ñoo ñu ne nañu former association lutteur professionnel mm-hmm. ñoo Moustapha Guèye daal koy former bi ñu formé loolu daal ma cee génn man génn ma ca ba ma set boo bàyyi gu ma bëri sax de ñu daal ma ca ba ñuy tudd tudd ma ci tudd ñu ma ca daal ma cee génne tubaab ak tubaabu joor ci la bokkoon te ñu boole tubaabu joor may leen yéen ñu coow ci coow lu bari parce que forme association daal jël ñii bàyyi ñi loolu mënut a nekk ma dugg ci wal Walfadjri bi ne leen ah, ma xuloo ci sax keroog coow naa ceeg Moustapha sax ma ne ko Moustapha man sa mag laa hmm. cër bi ngay jox mbéy gee nga may jox hmm. boo mënta jox bu koppi da may jox bu ni toll hmm. dama ne soo ma yëgee yëg naa la soo ma yëgul ma sax yaa ngi dox keroog li laa ko tontu ci Walfadjri bi. Mm-hmm. parce que wax dëgg moom boo ko teg ci télé boo nee di wax ci internet yi dax da ngay wax am. da koy wax ni ma am na xëy na lu ñaaw yoo xam ne du ko génne mais am na ci la ci dama lay wax la am ma ne ko man sa mag laa ñu daal ma ne ko yéen da ngeen a juum yéen su fekkee da ngeen dem ba former association des lutteurs professionnels da ngeen di te association ngi fi woon association de anciens lutteurs ngi fi kay dañuy def assemblée générale résoudre boobu daaneel boobu. daaneel boobu bu ngeen daanelee boobu nag former astation des lutteurs professionnels ñi bokk bàyyi yu bëree bokkatuñ fa ñi bokk bëree ñi nga xam ne toll nañ ci bëri nag ñu dem bokk ci lutteur professionnel. loolu ngeen waroon def ñu xuloo ci xuloo bu métti ci Walfadjri jamono Ndiaye Doos yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana Ndiaye Doos keroog moo démissionné moo moo dirigé émission boobu ci Walfadjri ba 11h la daan doon ba midi. ñu coowoo ci coowoo ci coow après kat yi comme léegi ñoom formé nañ seen association boobu booba temps sel mu ngi leen di encore couragé sel ak ma ak ñaa ñaa maa ngi nuyu ak ñaa ak ñoom tey sa nekk ci fël mbër gi ñëw dégg nga ànd ak Moussa Gueye nekk ci moom it fin de carrière jamono yooyu dajeeg moom yooyu quoi ak ñoom moom daal di dese tuuti ak tubaabu joor ñu daal dem kati ci la ma kati woo Amadou Kati Diop maa ngi koy nuyu waxtu kati daal ne ma balaa maa taal sama dem ba foofu ne ma. dama bëggoon ñu waxtaan ma ne ah, ma léegi dama association des anciens lutteurs comme gars yi formé nañu as euh, euh, benn groupe tuddee association des les lutteurs professionnels léegi génn nañ ñi ci léegi nañ leen def leen nañ association des anciens lutteurs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 la liggéey bu nekk ci seen yaram wala déet bu ngeen jokkoo ak Serigne Cheikh borom taw feex leeral lépp dina leer naññ bu dee da ngeen a amee seen i soxlay bopp jàpp a tukki leerlu leen ci moom ba mu leer ngeen leer ngeen leen si moom ba mu leer bu dee nga xam ne da ngeen di bëggante bëgg a dugg ci soxna a am borom kër day jaadu ngeen seetlu seen i ba xam ndax dëppoo na ndax seen i rawaan ànd na te loolee Serigne Cheikh moo ci teg loxo bu dee ñi bëgg xam seen bidiw ba xam kañ ak kañ la ñuy sàkk sarax kañ ak kañ la ñuy ñaan loog naka